ni mu ko daan defee rek li mu ko defe woon ca ñu suuxoon ca gaal ga mu ko defe woon ci mbas mii amoon lii it yëkkati na loo xam ne bu sama sañoon sax kenn du ko tudd ndax ku xam sëñ Muntaxa xam ni moom lépp lu muy def bëggul ku ko bëggul ku ko xam ne ku dul yàlla mi ko bind di tax mu def ko waaw xëy na nag nun nu amul sol mooy nit si àdduna inna insaana li rabbih seet yàlla mukk ci li nuy def ba tax na lu waaye def rek ñu bëgg ñu wax wane ko waaye sëñ bi moom loolu du am du euh, benn misaal rek laa leen ci dafa am kilifa bu baax bu fa ñëwoon nuyu ko siyaare ko yéen doog moom bay dem ñu ko yow de sama mag man dama lott ci oto fi daal dama bëggoon nga nga may ma oto bu may demee ci taalibe yi ak li di ko lig ci liggéeyal réew mi sëñ bi ne ko waaw ah, baax na dégg naa loolu boo ko defee nag ko yóbbu ca télé ba nga man du ma na ko waaye defu ci dara kon kooku xam ngeen lu mu def ko bind rek tax mu def lu mu def lu ne ci baax te yàlla tax kenn du ko waaye nag ginnaaw da ngeen nit xabaar ngeen da ngeen yëgle ak ak a xamle ñu xamal leen rek sëñ bi joxe na juróom fukki millions yoo jox na ma chèque bi ne ma naa ko téye ba ñi nga xam ne seqoon naa ñoom liggéey bi ñu waxtaan ba xam ni ñu koy joxe ak ku ñu koy jox waaye jox na ma ko nag génn jox na ma ko may li tey ma joxe ko moo di faa ma wax waxtaan bi ñi nga xam ne ñoom laa ko seqal ba xam wan wan yoon laay jaar fuñ ma fuñ ma jaarloo rek ma jaar loolu ci gàttal loolu laa si ab lu may dolli suñu talifu lu may dolli ci wax ji xam naa conclusion nag yéen a koy mën a ci ñi gurdi ak waa presse